asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ñuy ñëpp di ziare ñëpp kilifa yi ji mu ci am solo lépp alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Mahamadou Fadil taxawe na ko jàng na xutba bi buñ ko xamoon itam mu de am ci tabarruk barkeb xutba bi mën noo jëriñ biir biti dolli ci itam kàddu yoo xam ne xam-xam la fa tabarakallahu kon dafa mel na jataay bi ay wax desatu ci loolu naa waxtaan nag moom amul waxtu kon man lu ma tegg rek waxtaan la <coughs> dara mënu ci dolli kuy lu loo xam ne itam nag eh, dañuy gën a soññ suñu bopp suñu borom di gën di suñu yitte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 mënu ci ñàkk soobu itam bala moo mën a am dëddu àdduna am kon nu góorgóorlu bu baax jéem a sóobu jéem a gën a ñun ñëpp sax ñu ngi ci loolu suñu kem kàttan waaye waxtu wu nekk nag nuy gën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 ak yonent bi nga xam ne am na ci ndigal sidina Muhammad ak bi ñu ko gisee ba bu jot noppee gis ci diggante boobu rek la nekk di jaamu boromam liggéeyal yonent bi ci kaw sunnaam diggante bi tëlu fi dara ndax àdduna fi ne ak jëmmi bakkanu doomu aadama ak yeneen gàllankoor yi saytaan bànneex yooyu sëñ bi musta taal adduna ba yooyu di am ci moom wàll kon buñ ko bëggee jàng il faut que nu jéem a yàlla yàlla di ko gën a jéem waxtu wu nekk ñu dëgën a sóobu waxtu wu nekk ñuy gën a mën a dëddu adduna dëddu adduna téewuta lekk téewuta naan téewutul mbubb téewuta denc téewuta am kër da adduna da ngay def sa xel sa xel waxtu wu nekk da nga koy def ci jëme ci yàlla nga gën koo mën a xam mu la gën a mën a leeral yoon wi sa xol jépp nga waxtu wu ne ngay jéem di ko jëme ci yàlla mooy tax doxin wi yomb la bu yooyu amee nag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 suñ lépp di góorgóorlu bu baax foofu la jëf tàmbalee mu gën a góorgóorlu lu baax nag te lépp lépp lu gën a gën gën gën koo delloo gën a ci suñu boroom rek di yéene lu baax te Yàlla tax di wax lu baax te yàlla tax di di jëf lu baax te yàlla tax bàyyi lu bon te yàlla tax loolu foofu la jëf ji tàmbale mu lépp lu ñuy jëf nag ci loo xam ne bët mën na caa tegu lépp na yàlla tax nu da ko def di jëf góorgóorlu suñu kéem kàttan wala muy jëf joo xam ne bët mënu caa tegu ci yi nga xam ne mooy jóge ci jikko yi ñu góorgóorlu ci bu baax suñu kem kàttan lu ñu ci jëfee rek na yàlla tax mu du ko def loolu day daal delluwaat ci eh, positif ak ngor ak jom waaw ñaari xayma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama am muy ngor ak jom il fokk bala moo am njëriñ dëgg dañ koy sof ci positif kon euh, nu gën cee góorgóorlu lu baax ndax boo boolee sa ngor ak sa jom jiitu jiital sa Pastef ci jikko juree la lay andil ci lay delloo jikko juree nag ngeen ko xame loolu la suñu moom tagge yonent bi bu jukki jikko juree xasee am nag benn safaan duutu la mën a dog loolu noonu rek la demee maa ngi eh, sant mbokki jullit yépp ci seen lislaam sant mbokki taalibe yëpp ci seen ak taalibe di gën a ñaan suñu borom rek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 ñu gën xam sëriñ bi ndax lu ca war rek sëriñ bi noppee na ci loolu foofu lañu tàng tàmbalee jàng sëriñ bi ak dund ko jàng gi xam-xam la ñu xam ne sëriñ bi fi nga gis ba fi ñu noppee gis tëju fi dara loolu boromam dund gi nag mooy jéem gi koy jéem di ko jéem a xam di ko jéem xool loolu dana nu dana dolli suñ xam-xam ci moom dana dolli kàtt nit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 muy gën a feddali sama laxasaay ngir liggéey sëriñ bi ci ñaari ñaari diggante yooyu rek lay nekk jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi ni mu ko waxee rek ni ma ko tuddee ci boppam ba ñëpp xamee ko ni abdullahi wa xadimu li ci diggante boobu rek la nekk nun ko sañ nonu mun nu ñàkk jaamu yàlla ndax yàlla moom waaye nag nu liggéeyal nu boole nu nekk ci diggante boobu di jaamu yàlla nam ko nam nu ko digale ak na ware di liggéey sëriñ bi nam ko bëggee nam gën a selle jërë ngeen jëf ngeen daal sa bi ñaan